bés la bu bu rëy ci yoonu murit ndax euh, moo mooy bés bi nga xamante ne bii suñu wayjur Serigne Fallou Mbacké ibnu Khadim Rasoul ci la ganesee jamono mu amaat aussi benn signification bu am solo bu rëy ci wàllu diine bi nga xamante ne bii moo ñu boole ñun ñëpp muy diine lislaam kon bu ñu yàlla dogalee ñu bokk ci ñi nga xamante ni lu mu néew néew néew néew dina am lu ci jëf yaakaar naa ne loolu sant yàlla gën ko gën koo koy ndax bés bi lu ne àttan na ko comme ni ko maire waxee kon nag sëñ bi ñoo ko déggandoo li nga xamante ne bii mooy bëgg-bëggu comité d'organisation bi ci fànn yépp yaakaar naa ne réunion bi amul benn chef de service bu ko bu ko wuute maanaam service yi nga xamante ne bii ciblé woon nañ leen ñoom ñëpp ci waajtaayu bés bi ñëpp teew nañu comme ni teewoon daaw dégg nga ñoom ñëpp seen engagement yaakaar naa ne muy ci wàllu wér yaram muy ci wàllu service d'hygiène ci wàllu kaaraange jàpp ndox mi assainissement bi ak environnement beeg Sénélec ak yëpp ñoom ñëpp fësal nañ seen yéene ci li nga xamante ne bii mooy taxawaayu état bi nga xamante ne moom la war am ci bis bi nga xamante ne bii mooy bésub Serigne Fallou di ñaan rek. yàlla mi dara tawul yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko te tetal ko lépp loo xamante ni bii mébét nañ ko ci yàlla yeggale may ñu kàttan ñu yeggale ko te itam lépp li nga xamante ni bii mooy soxla yi nga xamante ni moom lañ diis bés bi yàlla si wàllu boppam mu fajal ñu ko ci barkeb li nga xamante ni bii moo tax tey ñu daje fi te ñëpp xamee ko ci maanaam euh, nitu yàlla bi mu doon te itam ñëpp xamee ko te loolu siw la naan ah, xaritu suñu borom la ah, ah na am mu am donc ñu ngi ñaan yàlla lépp luñ si tëxëñ rek ci wàllu mébét muy li nga xamante ne bi taxawaay la war a nekk ci wàllu état waaye itam soxlay bopp yi nga xamante ne bi nit ñi am nañ ko yàlla bi dara tawul yàlla na ko yàlla saafara ci barkeb ki nga xamante ne bi mooy Serigne Fallou. di leen sant ci li nga xam ne moo weesu. ci jataay yu amoon ak màggal yi xew bu ci nekk rek lañ ci doon séentu def nañ ci seen kem kàttan waaye nuyoo boobu itam ñu jottali ñu ko mbooleem chef de service yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi ak ñi nga xam ne waroon nañoo teew te xëy na ngànt teel a ñëw waaye danañ jot ci liggéey bi. di leen sant ñoom itam ci taxawaay yi nga xam ne moo weesu ndax at yi weesu saabu ñu tasee rek li nga xam ne moom lañuy ñuy kenn ku ci nekk da nga ca def sa kem kàttan. matal nag moom yàllaa ko moom moo ko am waaye ku ci ne da nga ca feeñal si yéen ak sa pësteef def ci sa kem kattan kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne ñun ñoom la ñuy jàppale ndax askan wi leen fi moom ñoo moo leen fi teg askan wi lañ fi nekkal kon lu ñu def lu toll nii kenn ku ci ne xam la cee sa wàll la nga taxaw ca na nga ca war a taxawee loolu danañ la sant ndax dañoo wax ne wëree suta sant ku def lu ko war waaye am ñu ne ki ñu war a sant mooy ki def la shukra ala waajib waaye am ñu ne laa shukra illa ala waajib ki def li ko war kooku lañu war a sant di sant itam mboolem ñi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi ki turu Serigne Xabaan mu jëlee kili ci ko ci ay kilifaam muy njabootu Cheikh Mamadou Fadel njabootu Cheikh Mamadou Fadel nag Serigne Abdoul Ahad wax na ko léegi bu ñu ko waxee mooy bindeef yi mooy bindeef yi mooy jullit yi mooy murit yi ndax moom dafa yoon ci biir kër Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax ne du ma doon doom bu bëgg a doon baayam du ma taalibe bu bëgg ñu seexal ko dama bëgg rek fu sëñ bi jëmee fu bi jëm jëmee ma fa sëriñ bi nag ku ne xam na ne mooy donay yonent bi sallallahu alayhi wa mu jógee la wax ne man li ma tax a jóg rek mooy xeñtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man nahjuhu uhyi wa sunnatahu insha rabbi ubayinu waaye wax ne nag eh, sama yitte ak sama aajo mooy xeñtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aslamtu wajhi li rabbin la sharika lahu maa allasi qafuhu shughli wa xaajaati ñaari baat yi arab dafa riche loolu kooku bokk doon tekki dana yaatu lool waaye moom mooy daal li may def daal mooy xeñtu yonent bi sallallahu alayhi mooy sama guddi ak sama bëccëg mooy sama yitte mooy sama aajo ñaari baat yooyu boo koy teg ci wolof sax day jafe te arab am bu ci nekk am na lu muy teg lu bokk te morom bi xeñtu nag ay wolof yi sëñ Abdou Lahad Bawol Bawol loxooma Kajoor bu ab ndaw ko ndaw masa masa def lu dul noonu bu ñu koy topp tànk bi dañuy xool naan tànk baa ngi nii tànk baa ngi ba ne mi ngi fii sëriñ bi noonu la def sallallahu alayhi wa sallam rek naan tànk baa ngi nii tànk baa ngi nii ba ne sallallahu alayhi wa sallam a ngi nii ba toogal ko fi nga xam ne mooy yeesalal ko sunnaam si yaatalal ko wooteem bi te sallallahu alayhi wa sallam moo ñëpp kon loolu moo tax ma ne màggal gi ñëpp a ko bokk ndax mooy rasulul alamin mooy rasulul basharin te loolu ñëpp dugg ci biir kon bu ñu dee màggal jataay màggalu Cheikh Mahamadul Fadel rek ñëpp ko bokk waaye nag mu doon bi màggal goo xam ne tam dafa xewaat ci bis boo xam ne lislaam yëpp moo ko ñoo ko bokk mooy bis bi nga xam ne ci la borom bi subhaanahu wa taala rañaale rañaane woon ku tedd ka rañaan mooy dox guddi jële ko masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa mu doon teraanga joo xam ne borom bi subhaanahu wa mësu koo defal kenn kum bind yonent yi ak anbiya yu alayhimu salaam li ñuy màgg màgg li ñuy tedd tedd taraanga jooju sallallahu alayhi wa rek moo ko mas a am te guddi gii la ko amoon kon guddi gu tedd la guddi la goo xam ne ñëpp ko bokk ci la kéemaan ma sa xew goo xam ne itam booba la njëkkoon a xew te ci la mujj xew mooy al isra wal waaye ci la pas-pas feeñe woon nag ci la dëggu feeñe woon ci la ngëm feeñe woon ci la jeex ci nitu yàlla wala jeex ci yàlla ci la feeñe woon mën nañ ko wax day ndax sayyiduna Abu Bakr di Siddiq radiyallahu anhu ba xew-xew ba xawee ñu di ko jokkalante mu yaatu ba mu yegsi ci moom ñu ne ba ah, sa soppe bi nag day waxati na nag moom dafa wax ne daal dafa rañaanoon biig nettali ko nam xewe moom daf ne leen bu dee moo ko wax rek dëgg la loolu moo yoral turu siddiq kon bi su pas-pas la bi su ngëm la te lislaam dinay ngëm la ngay gëm bi ci ponk bi ci njëkk mooy gëm bu ko defee jëfe soog cee topp kon bis boobu mooy bisu al isra wal mi'raj bis bi nag buñ ci dee waxtaan day gudd waaye dañuy tënk rek bi nga xam ne incha allah noonu la daan doxee rek xam ngeen ko moo tax tey gis naa ne jataay bi gën naa gaaw ndax lu ñu miin la duñ yàgg def la ñu koy def itam xam nañ dayo bis bi xam nañ ni mu yokkoo ba mu muñ ko solal ren rek bu déwénee incha allah dañ koy dogalaat meneen boobu mu gën a mag loolu moo tax waxtaan wi tey yàggewut nam mu daan yàggee waaye jataay yi ci daan am moom itam allah njaboot gaa koy waajal muy sëti sëriñ Falilou yi ñoom itam ni ñu daan def di tuddee wax rajo bi yaat muy ay jataay yoo xam ne dañ koy am ci kër yi bokki sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom di ko feddalee kóllëre waaye di ko doxe ak bokk loolu itam ñu ngi koy waajal incha allahu taala danañ ko def nañ ko daan defee itam soxna aram ak ñi ma wax nañ léegi ñoom it yéene yi ñu am ngir waajal màggal gi ci Ndakaaru moom itam dafa ko Masaalikul Jinaan ñoom itam ñu leen di sant loolu ci leen gërëm gannaaw bu ñu ci amee ndigalul Cheikh Abul Baraka ak Cheikh Abul Fatah ak seen Bachiro ak jox leen ci ndigal waaye mm, daayira set ñoom itam waajtaay yi ñuy def di def ay jataay fii ci dëkk bi am nañ ci buñ bëgg def Ndakaaru moom itam jagleel ko ñi nga xam ne ñooy mbooloo may liggéeyal Serigne Fallou foofa te Serigne Modou Thiam jiite leen ñu di jàmbaar yoo xam ne ndigal li ñoom itam ñoo ngi ko amee woon ca Serigne Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Fadil loolu itam mu doon taxawaay yoo xam ne kon da di bokk ci waajtaay wi ndax day yokk rek Kazu Rajab mooy màggal goo xam ne ci àddina bi yëpp lañ koy def bi màggal gi jàllee liñ ñu yónnee ci ay ay ay ay cassette vidéo fu ñu koy defee ci àddina bi danga naan fu mu jullit nekk rek fu murit nekk dañ fay def Kazu Rajab te waxtu wu ne bu ñu la waxee dayo ba na mi mel dañuy wane ne rek lii moom mooy wane ne rek yëfi Serigne Touba la ndax Serigne Fall dafa nekk ci biir Serigne Touba waaye yëfi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye yëfi bindeef yi alxuraan yi ndax wax naa ko léegi Serigne bi dafa fonkoon alxuraan bari na ci njabootam wala am na ci ñoo xam ne alxuraan la leen joxoon muy seen werd ñoo xam ne te loolu Cheikhul Khadim wax na ko qiraatul quraan yi saara wirdi Serigne bi nee na dem naa ba alxuraan jàng alxuraan mooy sama werd bokk na ci werdul maa xóot bi nga xam ne ñun ñëpp moom la jëfandikoo faaw nga jàng alxuraan ci bis bi waaye alhamdulilah ni comme njaboot gi ni ñu mokkale alxuraan mën ngaa toog fii sax ci saal bi ñuy waxtaan nga def sa wér du ma jàng sa alxuraan ndax du jar nga yor kaamil bi waaye rawatina léegi nag kaamil yaa ngi ci kii wax naa ci misaal daaw Cheikh Amadou Xabaan waxuma la jàng bi moom waqfam waaye kaamil alxuraan la wàcce woon ci saal bi moo tax kon nañu nañu nañu bàyyi xel njàng mi di ko def sellal te di ko def addiye Serigne Touba addiye Cheikh Mamadou Fadil ndax moom lépp lu koy defal rek nañ ko jiital ci Serigne bi te benn euh, benn benn benn fatiha na ayatul kursi wala benn lixlaas rawatina kaamilu alxuraan bu sell jullit yëpp xaj nañ ci rawatina nag ki nga xam ne moom lañ koy addi kon nañ yokk ñaan yi jàng alxuraan jàng xasaay def dikrullah def istixfaar e, siyaarante ñi gëjoon a gisee gisee ñu ñu ñu ñuy berndeel nit ñi di leen teral ngir yàlla loolu daanaka tënk naa discours bi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadoul Fadil njëkkoon a def bi mu wootee magal bu mag gi te magal bu mag yi dañuy wax ne moom la ko sëriñ bi fayee ci màggalu Kazu Rajab sëriñ bi daf ko ko faye ndax sëriñ bee mu digle woon waaye Cheikh Modou Fadil moo ko ko wooteel Touba ci barkeb Cheikhul Khadim ci barkeb Cheikh Modou Fadil asalaamaaleykum wa rahmatulah